bëgg askanoo lu ñu dëgg xam sa bopp ba gën la ki nga doon boo africain ana sutura bi fi ñoom maam woon jikko yu rafet ji ñu ràññee woon dafa mel ni dañu bàyyi suñu yoon bëgg askanoo mbokku téléspectateurs yi télévision Futur Média ñu ngi leen di nuyu am mbégte di jàkkaarloog yéen ci li nga xam ne mooy surtout askan wi di leen indi xew-xew yi nga xam ni moo mas a ŋànk réew mi naka jekk ay goro fi nekkoon di góor ak ay jigéen dam yetu ngor sàmme bopp di def lépp ci fulla ak ngor ak jom doon bañ noteel gi nga xam ne tubaab yi notoon nan ko ngir réew mi mën a egsi tey fii mu egsi kon daal mën na noon nangu ni loo gis mu am am na njëlbéen nga ku fa nekkoon di wax ak a xeex ko dox ba loola am moo tax tey télévision Futurs Médias delluwaat ginnaaw topp tànku mag ñi egsi ci benn dat boo xam ne day wane ni réew mi am na ñoo xam ne ñi ngi fi woon ci wàllu politique te mos ñoo des ginnaaw dégg ngeen mag ñi fi nekkoon El Hadj Mansour Mbaye am na yi mu jaar daana ko fàttali daan na fàttali Carpo daan na fàttali Blaise daan na fàttali sax Ngalandu wàcc ci Lamine Gueye ak Kera mooy Senghor ak ña leen daroon waaye tey dañuy seq waxtaan wu mag ak ay kilifa yu mag. ñett nag mooy may xam-xam sama moo koo xoole ñeent nee na xam-xam mën nga koo am boo jàngee mën na koo mën nga am xam ma ne ko waaw mun bu la net léegi nga jàpp te fàtte mën nga am xam ma ne ko waaw mun boo fekkee di net it mën nga am xam-xam ma ne ko lan mooy ñeenteel bi mu ma jagle bi yàlla kon tey mbokk yi bi ma tàmmu tey ci xam-xam yi mooy bi nga fekkee te di ko nettali moo gën a wóor ndax maa fekk joo gis bakkan nay laaj olof Ndiaye ko wax kon tey moonu fi dajale tey muy le 26 août 1958 dat bu rëy dat boo xam ni am na lu ko jiitu waaye man damay ragal a jóg tàbbi ndax wóorul dama bëgg ñu jàngat taarix ba ñëw tey ci li nga xam ne moo ñu indi tii ci bis bi muy le 26 août 1958 wax nan ko. amoon na lu amoon Kaolack 1957 am na lu xaw cent Thiès 1957 gars yi dem nañ ko tunu dellu waat kon yooyu yëpp dañ koy taxaw càmbar ko ànd ko ak ñi nga xam ne ñooy samay invité invité yoo xam ni saa bu nu àddoo nga xam ni lii ñuy wax fekke nañ ko jëf nañ ca lan ci war a jëf ca ban ci tolloo te it ba tey ñi ngi ci taxaw di ci ñaax askan wi pour ku nekk am ngor ci sama nijoor moom laay doore mooy Me Mbaye Jacques Diop dégg ngeen turam miin ngeen ko ci wàllu politique dégg ngeen ko mu nekk meeru Tëngéej ay yooni yoon dégg ngeen ko mu nekk député à l'Assemblée nationale ay yooni yoon dégg nga keroog ba ko ab Wade nommé mu yor li nga xam mooy CREAC naa ci dellu kii may wax Me Mbaye Jacques Diop moo nekk président des porteurs de pancarte mu féete sama ndijoor ki de nag moom ti njooram El Hadj Baro Dieng lay la tudd xanaa askanam war ngeen koo ràññee ci biir lébu gi mooy borom ñaari alliés yi allié Kodou Ndoye ak allié Kodou Dieng di rakk ci Aram Dieng kon loolu rek doy na adresse maa ngi dend ak kee xam mooy Seynabou Lou Kobar Ndiaye jigéen joo xam ni soxna ci woon Racine Ndiaye mi nga xam ni am na lu mu ko ci biir réew mi moom it laata mooy nekk soxnaam am na lu mu nekkoon ci biir politique. kii ma dendal ci sama càmmoñ te mu den ak alaaji bu Kunta Ndiaye Adja Adja Awa Gaye présidente mouvement des femmes porteur de pancarte waaye moom bokkoon na ci délégué yi nga xam ni ñoo demoon l'union des femme du Sénégal yi def kon festival ko ci 11 septembre 1958 xanaa kon toolu taarix la buum gi ngeen dégg nag gawlo bu mag boobu moo ko foddat dégg nga ni fàttali waaye bu ko jaree laal heure bu laalee buum bu yëngal ko rek ma faram fàcce ku ñu doog dugg ci waxtaan waaye mbokk yi damay egsi ci ki xam mooy président Mbaye Jacques tey ngeen baal ma ma tordlu coup à l'histoire parce que le griot a le privilège de le faire Diop Mbaye Jacques moo gën a wóor parce que bu njëkk tubaab bi loolu doon wax au lieu ñuy wax Abdou Aziz Mbaye dañuy wax mbay Abdou Aziz pour fàttali ñi mu bokkaloon te ñuy dund yàlla na fi yàlla yàggal loolu nga xam ni moom laay utiliser tey sama diggante ak sama kilifa gi toog maître réew mi am na fu mu toll woon am na loo ci fekke loo maa fekke joo gis nag bakkan lay laaj ma lay laaj bi ngeen demee Thiès 57 waxtaan woon na mu tënkoo ba këru ngeen di soobu dem ko tunu péripi su jàmm bëgg nga leeral ko sunu mbokku téléspectateurs yi Maître Baye Jacques Diop. après lay gërëm Abdou Aziz yi tamit euh, sant suñ borom yàlla. bi ñu mayee bi occasion ñëw ci suñu kër doom ji di Youssou Ndour ak rakkam yu baax yi ak tamit personnel bi yëpp ni ñu accueillir ni ñu defee seen baay seen kilifa seen seen ndey ma ànd nag ak sama xarit yi sama ñaari jigéen ak sama rakk ji muy Baro Diène suñu secretaire à l'organisation dama koy tooñ souvent naan ko Baro Diène rakku Aram Diène mbaa Baro Diène rakku Ahmed Diène waaye tamit moom ku ñu ràññee la ci réew mi mm-hmm. mooy suñu secrétaire à l'organisation ki ci topp di Seynabou Lukkubar Ndiaye doon soxna Amadou rasin Ndiaye ancien ministre ancien ambassadeur ancien secrétaire général du MJPS. 59 à Mbour. ki ci tegu di sama jigéen Adja Awa Gaye doonoon responsable parmi les femmes de l'union l'UFS l'union des femmes du Sénégal représenté Sénégal ci daje yu bëree bëri moom ak màgget Diop Maguette Diop dafa xaw a tawat waaye kon day ñëw moom tamit fekkee Maguette Diop moo ñu représenté woon Chine. moom mi mu représenté ñu Bamako ma di la gërëm di sant di gërëm tamit bu bu Ndiaye li nga ma laaj nag sawar naa ci ndax danga ne sànq maa fekke lan lay laaj. maa fekkee joo gis bakkan lay laaj. alhamdulilah 1957 du ma sax sori 57 laa yem rek 57. dafa am lu ñuy wax fusion ay nit ñu booloo moo di BDS bu Senghor Bloc démocratique sénégalais ak Union démocratique sénégalaise RDA boobu léegi Kabri ak Thierno Ba ñoo def fusion en 1956 dugal ci BPS Bloc populaire sénégalais UDS ak BDS ba ñu booloo. Hmm. dañu tudd seen bopp. BPS bloc populaire sénégalais ca la kan nekkoon Ablaye Ly après Ablaye Ly bokkuloon eh, ids moog Assane Seck ak Makhtar Mbow waaye ñoom bañ ñu jàngee France ba ñëw dañu woon dañoo bëgg a intégrer un parti de masse ci la ñu nag intégrer donc donc BPS. Mhm. Ablaye Gueye Kabri ak ñoom ñu Ba ak it Amadou Racine Ndiaye ak Amadou Ndeye Ndaw intégré donc fusion boobule mu def BPS 56 57 ñoom mag ñi ne ñu nag yéen xale yi tamit il faut ngeen def seen fusion fusion bi mooy lan UDS RDA bu ñoom Amadou Racine Ndiaye Amadou Ndeye Ndaw ak euh, ñooñule ak ñun BDS muy mbay Ndiir bu Thiès yàlla na ko yàlla yërëm. Masama Ñang bu Ndar mhm. Galangueer bu Thiès yàlla na ko yàlla yërëm Amadou Lamine Sarr eh bien bu Foundiougne ak alkali Diouf bu Foundiougne ñooñu ak ñun ñoo def ndoog BPS ñu ngi ko defee Thiès kër Édouard Latouf mu di congrès bu mag congrès de fusion ci ñu nag donc créé union des jeunes du bloc populaire sénégalais UJBPS. man mii ñu fal ma secrétaire général à l'organisation et à la propagande booba temps poste la bu am solo mooy yaa amee section yi yaa amee règlement intérieur yaa amee beaucoup de choses Rachid Ndiaye jëkkalu soxna si ñu fal ko trésorier général Amadou Layane daw mu ñuy dégg ñu fal ko secrétaire général lii moo amoon congrès Thiès waaye tamit la fa am ci solo mooy Badou Dieng bien koy souvent euh, rappelé moo ji ne ba xale yi nag ñun cinquante sept ba ñu ne kat ñun léegi nag dañoo bëgg nag dem indépendance Ablaye lii yàlla na ko yàlla yërëm te yéexuñu Ablaye Guèye Cabri ñoom ñaar la parti bi délégué pour ñu ñëw fekk suñu congrès boobu boobule ba ñëwee fekk ñu ñu nekkoon ci laaj. indépendance ñun ñu ne ñu d'accord nañoo yéen waaye xaar leen tuuti parce que dafa am lu ñuy liggéey moo di booba temps ñu ngi wër-wëral pour am un grand parti africain moo di PRA parti du regroupement africain ñu ànd ci ak ñoom 58 Aziz Mbaye mm-hmm. beneen fusion am fusion Lamine Gueye Bakar Wali ak Léopold Sédar Senghor ñu def ñu créé UPS janvier 58 fii ci euh, Dakar donc 58 boobule Ablaye Ly Ablaye Guèye Thierno Ba euh, Lamine Guèye Babacar Seye Chapar euh, Mamadou Dia ñëpp ñu woon ci biir UPS. Mm-hmm. koo muy nit ku baax ci réew mi mbaam muy ku ñu xam ku ñu ràññee yaa ngi woon ci biir UPS. bon donc loolu c'est en janvier mu am nag événement bu am au mois de mai 58 mooy lan général de Gaulle la armée bi man ma ba ñu indiwaat ko au pouvoir après les événements du mai à Alger loolu nag indi nag changement ci France de Gaulle créer la cinquième république de Gaulle bëgg changer rapport France ak les territoires d'outre-mer ñun tamit ñuy préparer dem congrès de Cotonou 25 26 27 juillet 58 Aziz congrès bu mag déléga délégation bu Sénégal ba fukk la woon ak benn Rose Bass yal na ko yàlla yërëm ci la woon maxtaan boobu bii mu ngi ñuy dégg ci la woon. Assane Seck ci ci la woon waaye Assane mu mujjul mën a dem parce que jabaram dafa feebaroon mu ñu delloo si biyam fekk ñu e aéroport bii Assane Seck la voyagé man. bii Assane Seck. dina koy rappeler souvent ay doomam xam nañ loolu soxnaam xam nañ loolu booba temps amuloon passeport soxlawul passeport. carte d'identité rek ci laa voyagé Dakar Abidjan Abidjan Cotonou donc délégué bi délégué la woon comme ñëpp maa ngi woon tamit xale ci délégué yi doon dem. booba ñaata at nga am. ñaar ñaar fukki at ak ñaar. mbokk yi ndaw du tee am jom ndaw du tee am fulla ndaw it du tee topp mag ñoo xam ni dañoo bëgg seen réew te bëgg jëmal réew ma ca kanam. ñaar fukki at ak ñaar. nga ànd ak Senghor ak Mamadou Dia ñoom Ablaye Ly mag ñun ñëpp nga ànd ak ñoom jëm fi nga xam ni mooy Cotonou fi nga xam ni fa lañ doon waxtaane lan mooy décisions yi war a jël ci biir Afrique occidentale moom mu bokkoon ci biir délégation bi waaye bala may dugg foofu ñu waxtaan damay ñëw ci nga xam ni mooy Adja Awa Gaye Adja Awa Gaye nga bokkoon ci ñi nga xam ni mooy jigéen ñi fi demoon euh, li nga mooy festivalu Bamako ci 1958 11 septembre 1958 ñan ñoo composé woon délégation bi ak ba ngeen demee Bamako lan ngeen fa waxtaane woon ña ngeen fa. jërëjëf Aziz li nga wax rafet na torop waaye bala may wax dara damay gërëm sama président ba pare. Mm-hmm. parce que su ma amee occasion ba toog fii di wax tey jii. grâce à moom parce que ñun fàtte woon nañu xamatuñu yëgatuñu ndax dañoo sonn ci Sénégal liggéey fi liggéey boo xam ne jigéen ñi dañ ñoo leen fàtte waaye moom bi mu ñëwee rek yëkkati nañu ba ñu fàtt ba ñu fàttali ko ñu tey ba ñu mën a ñoo toog fii tey di ko wax l'Union des femmes du Sénégal man j'étais euh, militante ci laa milité woon en tant que militante de l'UDS de l'UDS léegi bi nga xamee ne nag Euh, def nañu sunu union des femmes du Sénégal ba pare. Adja awa nga may ma euh, bi nga nekkee foofu lan nga doon def ci biir UDS parce que c'est important bala ñuy ñëw ci délai ni ngeen ànde ba nga ci biir mbooloom ba ngeen dem ba ko lan nga doon liggéey. ci biir lan nga ma laaj. ci biir UDS ci seen biir nga nekkoon. l'union des femmes du Sénégal. déedéet bala ngay ñëw ci biir UDS bala may ñëw l'union des femmes du Sénégal. waaw boobu maa ngi nekkoon dans le PRA Sénégal boobu j'étais dans le Sénégal avec mon mari. sama jëkkër moo ma si dugaloon. nu mu tudd. Ablaye Cissé. Ablaye Cissé. waaw léegi bi ñu nekkee dans le para Sénégal ak euh, ak Mamadou Racine Ndiaye ñoo daan ànd. Uh-huh. léegi ñun jigéen ñi bariwuñu woon yaawee man Cumbe sàmb ak Maguette Diop. Uh-huh. ci para Sénégal ñu commencé di militer foofu mi li ñu doon militer yëpp c'était pour défendre notre honneur. dëgg la ndax tubaab yi dañu nootoon noot bu metti léegi nag ñu gis suñu jëkkër yi sonn ñun tam ñu jog jàppale leen. fu suñu jëkkër yi def réunion rek ñu ànd ak ñoom def réunion. même bu ñuy def euh, première mai. Hmm. bourse de travail. Hmm. dañ daan ànd ak ñoom dem di défilé. di chanter la les partisans ba yegg. waaw. léegi nag bu yooyu yëpp paase ñu toog ba xam ne ñun jigéen ñi bariwuñu te gis nañu yeneen jigéen ñu ngay def seen groupement bopp léegi ñun tam ñu def ouverture daal di woo femmes du PAI woo les femmes du PRA Sénégal ak d' femmes boo ñu ñëwee ñi daal di constituer l'union des femmes du Sénégal. Sénégal dëgg la waaw. bureau bi nu mu meloon. ñi daay taxawal suñu bureau def Jeanne Martin Cissé moo doon la présidente des femmes Thiombé Samb était la vice-présidente des femmes Maguette Diop pro kii la yoroon propagande la yoroon organisation. man Awa Gueye la presse laa yoroon. la presse waaw. Ah, xanaa kon boo yoree la presse daan nga recevoir ay documents yu daan jóge France di ñëw. dama daan yor presse bi ma yoroon. waaw. Euh, la femme de Jacques Duclos. Hmm. Jeannette Vermèche. Hmm. daf ma daf ma daan envoyé des journaux man tam ma daan ko envoyé suñu journaux. Ah. la femme française. la seen journal tuddoon ñun les femmes seen revue de la femme sénégalaise la ñu amoon. dinaa daan naa yor itam yeneen journaux yoo xam ne c'était l'Union soviétique les femmes de les femmes soviétiques. Mhm. la nouvelle Chine et la Chine populaire. yooyu journaux yëpp daan nañu yooyu yëpp dañ ma ko daan jox suñ ma ko joxee. Mhm. ma distribuer ko ma distribuer ko les militantes ñu bokk si bureau beek ak militantes yëpp ma distribuer ko Jabari Racine Mbaye Ndiaye mii ci la toog ci la bokk. su ma leen joxee ku nekk sa nombre de journaux ñun ñëpp. dañ daan takku ba dëgër taxaw ci feu rouge jaay sunu journaux. dañ daan taxaw ci feu rouge jaay sunu journal ba mu yegg ñu jël sunu xaalis denc bu ñu bëggee def meeting ca la ñu daan def sunu meeting bu ñu bëggee am organisation moom lañu daan def maa de pende sec bi jàngal duun njaay ros tëgg ah. moo doon sunu géwél bu ñu mësee organiser meeting moo ñu ko daan tëggal booba nag booba euh, booba nag politique metti na parce que ñun jigéen ñi dañ ci sonnoon torop waaw ba ñu demee ba Bamako ñu désigné ñu pour ñu dem ba Bamako man la ñu désigné woon ma dem Bamako ba ma demee Bamako maa ngi ànd ak Cumbe Samb maa ngi ànd ak la femme Bassirou Diagne Awa Ndione Awa Ndione mm-hmm. ñoo àndoon yaa ngi dégg ak d'autres femmes ba ñu demee ba Bamako fu nekk dugg nañ fa fu nekk def nañ fa réunion dem nañu booli bànnaak fu nekk dem nañ fa avec les femmes ba ñu demee toog juste ñu dégg ne dogal war naa ñëw au Sénégal bi ñu dogal war naa ñëw au Sénégal nag. Mhm. ah ñun ñu daal di leen demander par curiosité les femmes maliennes ba xam comme naka la ñu war a mun a préparer ñoom itam ñu daal di ñu initier am lu ñu wax. ah ñun tam ba ñu ñëwee ci jàmm ak salaam loolu ñuy wax ñuy retiré ci ay leçon daay toog nag di xaar. général de ah, mbokk yi xanaa kon naka jekk jigéenu Sénégal musula toog góor baax na jigéen baax na ñi daan wax daal du tey jii rek lañ ko ma a waaye fekk na ci waar wi jigéen ñi ñi ngi noonu dégg nga Adja Awa Gaye li mu wax dan daan ànd suñuy jëkkër bu ñuy def premier mai di woy di chanter ba àgg. di recevoir les journaux soviétiques les partis communistes français takku ba dëgër di taxaw ci mbedd yi di ko jaay di def seeni kees loolu mooy li nga xam ni jigéen naka jekk mas naa taxaw réewam ci wàllu woow mu jëm dégg ngeen ko ban fa àggee jigéen ñan fa fekk di seeni nawle ak ña mu àndal fekki leen ñëpp faloon a xam ne ni De dina ñëw Sénégal ñoom ñu laaj seen mbokk ñu def looloo tax bi ñu ñëwee ñoom it ñu préparé wu toog di xaar kon mbokk yi damay ñëw ci sama jeneen tànt ji nga xam ni moom it am na taxawaay bu réy bala ma ñëw ci El Hadj Barou ah, soxna si dégg nga li soxna Awa wax yow lan moo doon sa taxawaay ak lan nga daan def ci biir parti bi auzubillahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim maa ngi nuyu mboolo mi di am kontaante ci toog bi ñu toog fii toog bi ñu toog yàgg na waaye yëguñu ko ndax ñu ngi ci suñu kër doom ndax kii ñu fekk si nii tey ñoo bàyyi bàyyam ñoo doon ànd di wut indépendance bii nga xam ne moom lañu am tey ba ku nekk di yëkkati sa loxo ñun bi ñuy commencé man huit ans laa am 18 ans laa am ñuy formé théâtre ci théâtre boobu ñu formé woon ci leen daan wax wax yu bare bare bare pour affaire indépendance bi ñu ngi nekkoon centre de course booba na ba moo ñu yore ak Babacar njong bi doon sëy ak doomu doomu Cumbe Samb. Mhm. bu nu jógee foofu ñëw ci suufu marché Sandaga di fa joué di fa répété bu nu fa jógee dem maison des jeunes fa lañ daan joué. dañ daan yor suñuy gën ci gën gi ñu daan yor dañ ci daan lancé suñuy message di wax ku dem Cotonou ñu ngi dem Cotonou ku demul Cotonou ñu ngi dem Cotonou Cotonou jaamu réew la. loolu ngeen daan wax ci kandang ci kandang di kandang di kandang di wax loolu di woy loolu waaw ci la ñu nekkoon nag di awagay wax yépp noonu wax ji yëpp noonu la demee ñu soonoon ci lool fu góor ñi taxaw rek ñu ko taxaw seen wet da yàlla dafa teel a def suñuy xel ak suñuy xalaat ne ñun ñii suñu réew mi war nañ cee xeex war nañ cee jàpp bu ëllëgee si biir bu lu ñu di suñuy doom teel koo xeex lool waaye presque mën naa jox léegi li fi nekk ak ñi fi passé xamuñu suñu valeur jigéen ñii li ñu doon joué démb. Hmm. mën na jox ne li avogay wax ci mbay sax gannaaw yàlla moom moo yëkkati loolu ba ñu mën a xam taxaw mu nekk suñu tiitar ñun ñu yëkkati tiitaroo parce que chaque fois mu wootee lii am coow dina am wax dina am waaye ñi xamul xamuñu waaye ñun ñi xam te fekkee woon nekkoon ak moom démb ak barka démb ñuy dem place proté góor ñi daanu. ñuy rooti ndox ay siwu ndox di leen jox mbay Jacques di romb jigéen ñi di jënd ay gerte caaf di leen jox di jënd ay mburu di leen jox ñii di miir ñii di daanu taxul ñu daw benn yoon. dëggal loolu mbokk yi waaw taxul ñu daw benn yoon. dëggal mbokk yi addinaa ngi noonu Sénégal a ngi noonu. dëgg li mu wax nee na boobu ba tey mosunoo bàyyi góor ñi naka jekk ci loolu lan def mu génne benn wax bu rëy ñi ngi pare dem Cotonou. ku parewul dem ko tunu ñun ñu ngi dem ko tunu ndox ko tunu jàmmi neen loolu mooy li nga xam ni moom lañ daan kànda ngi ci gën yi mas naa fee wax ni leen l'Afrique toutes les manifestations c'est des espaces de communication kàndang objet œuvré mooy gën ak kuur jigéen ci njël la daan jël cot sox di ci waxtaan bu gan tàbbee ci biir kër gi ñu yoy ci jëkkëram wax ko ko bu ju deful li mu war a def ñu wax ko ko bu njëkkee nekkee ci kër gi di deful li mu war a def ñu kàndang waxaale ko seen soxla kon ñoom daan nañ waxante seen biir te kenn du xëy dem sa kër morom di wax kàndang a ngi noonu. bu demal. kay ci ne kumbal ak dégg dégg alaaj bu Kunta Njaay souvenir xam naa boobu dinaa ñëw benn émission boo xam ni damay dugg ci waxtaan woowu buum googu mu yëkkati waaye Adja parité boobu ñuy dégg dafa mel ni ci li ma déggandeem ci wewu béy neneen bi ngeen demee ba ma ko ci festival ba man na ni junjoon fon lu mel ni parité lan nga ñuy tontu bala ma ñëw ci élage Hadj Baro Dieng. waaw Aziz tuddee parité dina ma neex lool ndax parité dañ ko yàgg xeex te amuñu ko woon ba ñu demee ba Bamako ci festival yëpp ci euh, ci euh, temps festival bala ba ñu demee waxtaan ànd nag suñu femme malienne ya fa nekk doon nañu demander au sujet de la parité ba xam naka lañ ciy demee. Mm-hmm. ah ba ñuy demee ba xam ñoom wax nañu seen seen kàddu ba xam ñoom fa ñu sës ñun tam ñu ànd boole lañu am ñoom lañ ñu wax ak ñun li ñu wax ñu ñëw nag ñu ñibbisi bi ñu ñibbisee. Hmm. ñu daal di woote réunion assemblée générale la ñu woote ne léegi daal li ñu bëgg moo di comme que sunu góor ñi dañoo sonn ñun tam sonn nañu te léegi lu ñëw rek ñi féetale ko góor ñi lu ñëw ñu jox góor ñi jigéen ñi amuñu dara léegi dañu jéem a demander ndax ñu am parité am fu ñu teg. ndax au moins ñu mën a feeñ book ñu ne d'accord ñi daal ci commencé di détailler ba ñu toog dañuy léeg lañ toog une semaine daal di def suñu meeting meeting bi duñ ko def lu dul pour woote pour woote sur la parité rek. sur la parité pour woote jigéen ñi dugal seen bopp sur la parité te parité boobu ñu loon woote du parité boo xam ne légal euh, euh, euh, la femme à l'égal à l'homme déedéet ñun li ñu doon woote moo di. góor bu nekkee ci bureau ba la mu war a am jigéen war na ko fa am solde bu jigéen ba am góor ga war na ko am waaye du tey lañ daan liggéey sunu kër nag di topp sunu jëkkër yi ñu ngi leen daan topp ca kër ga bu baax ba fa parité bokk ci. jë waaw kon mbokk yi waxtaan waa ngi noonu dégg li mu wax yow mi may déglu di nekk assemblée nationale ñu koy wax honorable député Aïda Mbodj yow may déglu madame le ministre Aminata Mbengue Ndiaye. yow mi may déglu ministre conseiller Amsatou Sow Sidibé yow mi may déglu Anta Sarr aw ngeen woy woo xam ne ña ko woyoon ña ko woy ca ba ma ko doog a ñëw Sénégal kon parité bi dëgg la waaye ñoom li ñu wax mooy li ngeen wax rek fu góor taxaw ba am dara te ànd ko jigéen ba am ko na gëstu jigéen jox ko cërëm xanaa loolu lan dernier euh, décision yi nga xam ni moo génnee ci ci cour d'appel bërki démb mu annulé ay élections locale yoo xam ni danoo observé wul parité waaye ma ñëw ci El Hadj Baro ñaari alliés yi allié Kodou Ndoye allié Diène màggee ci kër goo xam ne dañuy politique ku wax Ameth Diène wax ki nga xam ni mooy jigéenam ba député à l'Assemblée nationale taalibi sëñ Babacar bu mag ba loolu mooy li nga xam ni moom mooy titre bi nu mën a jox tey jii ki nga xam mooy El Hadj Barou El ci wàllu histoire ci 58 yi fa nekk nga nekk bokk ci jeunesse bi nan ngeen ko daan dunde la ma ñëw ci maire Maysak ba nu jógee Cotonou ak wax jafa xew. El Hadj Abdoul Aziz ñu ngi lay féliciter comme ni ko président defee di ñaan yàlla mhm. ñun ñëpp ñu fi toog ku nekk def ci xelam faatiya ak ñetti qul huwa allahu ahadun ñu yónnee ko la jeunesse bi nga xam ne am nañu lu leen dal ñaanal ko Basiiru Fay ci suñu turu association ku nekk jàng ko ci sa xel mhm. ñu ñaan waa Sénégal yëpp aussi ñu jàngal leen ko parce que ñun li ñuy def nii xale yi ñoo tax ñu koy def dañu bëgg li ñu jaaroon démb xale yi mun fa jaar tey ba mun a tabax nation bi moo tax ñuy ñaan yàlla yal na yàlla def jàmm ci Sénégal. amiin te problème mu étudiant am na juróom-benni at def nañ ko discuter ko ci suñu association at bu nekk dañuy indi benn thème jeunesse éducation sociale syndicat ak yooyu yëpp ren ñu def ko ci defi économique bi daañ ci ñëw. mais li ngay laaj histoire historique bi la Mbaye Jacques defal loolu rek laay confirmer que 58 dafa am lu ko jiitu. parce que à partir des années cinquante cinq y un bouillonnement intellectuel boo xam ne jeunesse bi dañuy xeex pour l'émancipation de la société africaine Afrique occidentale yëpp di ko def mm-hmm. mu am ay mouvement fii IPS balaa muy ñëw BPS BDS moo fi nekkoon ñoom mbay Jacques nii ñoo ko formé nekkoon bureau mais man cinquante quatre ci laa bokk mm-hmm. ci booba maa ngi am seize ans mais ñuy doxal ànd ak sengoor muy doxal ba 1956 58 ñëw France comme ni ko Mbaye Jacques waxee am loi cadre bu ñu proposé Senghor bañoon pour bëgg Afrique yëpp nekk benn mu contre la balkanisation de l'Afrique doon wax nous ne voulons pas des joujous et des sucettes nous ne voulons pas une collaboration du cheval et de son cavalier nous voulons être des éléments égalitaires ñu dugg loolu dugg suñu yaram ñu koy xeex di ko doxal wër Sénégal yëpp nekk une jeunesse avant-garde mhm. comme ni ko Mbaye Jacques waxee ñoom ab Ablaye li ñëw renforcer parti bi gën ci indi progrès gën ci indi démocratie pour ubbi émancipation bi booba ñoom bi ñuy door ñëw ñu ngi amoon benn journal bu ñuy wax le progrès ñoom ñu dugg ci biir parti bi mais ne ànd ak mouvement de masse comme ni ko Mbaye Jacques waxee pour développer le BDS ba mu ñëw nekk BPS ñu ànd ak ñoom ñuy liggéey année yooyu nag di di année yu tàng parce que booba fekk na dix ans auparavant français yi def lu garaaw Madagascar ils ont exterminé quatre-vingt mille malgaches un gouvernement socialiste français en quarante-huit rey leen ñu doon revendiquer ay indépendance mhm. après Algérie ñëw après Maroc ñëw xeex yooyu ak Bandung ak Indochine ñu koy vivre ah, jeunesse bi nekkoon ci partie bi ànd ak yeneen jeunesse su Sénégal yi ñu koy doxal le RJDA bi nga wax am ñu am siège à la rue 13 angle 18 ñoom Maguette Diop ñu nekk xale di fa dem ñoom Racine Ndiaye di fa ñëw di ñëw ñoom Mbaye Jacques ñi nekk continue di xeex ci parti bi pour mu jëm kanam Ablaye di ñëw encadré ñu ñun ñëpp ànd ak ñun ñuy liggéey ñu créer le comité de défense de liberté démocratique boo xam ne IPS mu ngi ci woon conseil de la jeunesse du Sénégal mu ngi si doon conseil de la jeunesse d'Afrique avec ñoom Assane mason Diop ak ñoom euh, Aboubacar kii Ali Bokar Kane ak euh, RGDA ak ñoom Aline Badara pay ak ñoom Diouf mbañ Faly ak le PAI ak yeneen parti ñu ànd di liggéey nag di préparer arrivée de boobu comme ni ko Mbaye Jacques waxee jërëjëf jërëjëf El Hadj Baro Diène ci loolu nga indi historique bi kontaan naa ci trop waaye président Mbaye Jacques délégation bi ak Cotonou mu mel ni ñi nga lim ñi jóge fii Senghor bokk ci Lamine bokk ci ñoom dañ leen a fekk Cotonou wala danoo jóge fii bi ngeen demee Cotonou ba pare nu mu demee waaw li ngay laaj am na solo trop Aziz ndax confusion day am hmm. surtout nag ñi fekkewul dëgg waxaat naa ko sànq jëlaat yow sa expression maa fekkee woon da nga lan. maa fekkee joo gis bakkan lay laaj. Cotonou bañ fi jógee di dem man mi c'est la première fois keroog ma dugg ci avion. Mmh. cinquante 58. waaye c'est normal j'ai 22 ans. ñu def escale Abidjan. Finlande Abidjan. hôtel ba ca suba sa ñu nëkk dugaat avion ci après midi bi. pour dem Cotonou. diggante Abidjan ci Cotonou soriwul waaye booba temps loolu fi xewoon. Mm-hmm. avion yiw daw ñu sori lool. délégation du Sénégal fukk la woon ak benn sengoor mu ngi woon France bokk ci ñi dugg ci avion bi Lamine Gueye mu ngi woon France dañu amoon session parlementaire ñu am ñaar. waaye ñoom ñaar ñëpp fekk si nañu ñu ba ñu fekk see Cotonou wax naa ko sànq délégation ba trois fakkal la Senghor mu ngi ci woon boŋ Lamine Guèye Mamadou Dia Abdoulaye Ly Ablaye Guèye Cabri Thierno Ba Makhtar Mbow Amadou Ndaw Amadou Mokhtar Diop Pierre Ly Mbaye Jacques Diop Rose Bass moom mooy jigéen rek bi ànd ci délégation xam nga ma fekke moom kenn mënu ci dara man tamit loolu chance la woon ci man ma fekke loolu xam nga Aziz bureau politique BPS vingt quatre personnes la woon vingt quatre ñaar fukk ak ci nit ñu jël ci UDS RDA juróom-ñaar jël ci BDS fukk ak juróom-ñaar muy ñaar fukk ak ñeent man ak Racine Ndiaye ak Ndeye Ndaw ñu def ñu délégué des jeunes au bureau politique du BPS. Hmm. ñu ñett. waaw xam nga lii tamit kenn mënu ci dara ñu jege fa nag. bañ demee ci Cotonou man ak Amadou Racine Ndiaye ñoo fa demoon ak Makhtar Diop Racine demuloon congrès ba Aziz Bakary Djibo bu Niger. Mhm. chef du gouvernement fekkee na ko Faidherbe Sissoko bu Soudan bi doon bi doon léegi Mali fekkee na ko Amadou Dicko fekkee na ko. Euh, Hubert Maga fekkee na ko Bari Diawandu Guinée fekkee na ko Baye Trois fekkee na ko Toor Fakal la ñëpp fa newoon Senghor nag avant loolu convention africaine la euh, waaye nag ba ñëwee congrès de couture mu doon nag PRA parti du regroupement africain mm-hmm. pour la première fois ci Afrique francophone pour la première fois parti bu magee noonu laaj indépendance immédiate congrès ba. Hmm. jël ñetti résolution ñetti mot d'ordre premier mot d'ordre indépendance immédiate léegi léegi léegi ñaareel bi ñu ne nation fédérale africaine mooy unité africaine ñetteel bi nag bu ñu amee unité africaine nag ñu doon nag booloo nag suñu bopp ak yeneen réew comme France Aziz am na solo loolu PAI yi wax ko waxu ko MPS waxu ko. benn parti waxu lu mooy parti du regroupement africain PRA. UPS nag doonoon section sénégalaise du PRA comme ni Sawaba doonoon section nigérienne du PRA. du comme ni le bloc de Guinée doonoon section guinéenne du PRA comme Union soudanaise doonoon euh, section sénégalaise soudanaise du PRA nit ñi nag y a confusion bu bëree bëri bëri bëri moo di PRA. mu ngi juddu ci Sénégal le 20 septembre 58 bañ jógee Cotonou juillet ba ñëw Sénégal rentré mois d'août ñu war a recevoir général de Gaulle ñu def ba ñaari yoon réunion di bureau politique sant Ablaye Ly mu coordonner l'action des jeunes. Mmh. Ablaye Ly il faut lui rendre hommage kooku la mag la mu baax jàmbar patriote kooku moo doon coordonner ñun. ñun ñoo euh, euh, ñooñ jox moyen ñu wuti ay banderole ay pancarte ay ay euh, flyers et cetera lépp ñu ngi ko defee kër ab Ablaye Diop imprimeur ci Rebeuss ci Rebeuss waaw mais maître dafa am foo xam ni dama bëgg nga may ci suñu mbokku téléspectateurs yi da ngeen wàcc kutunu délégation en général délégation bu ñu àggee ci mën réew ba la ñoo xëy suba dem ci congrès bi dañuy toog waxtaan. am na solo seen waxtaan woowu ngeen demee nan la waxtaan wa demee ak. ñan leen désigné ñu nekk porte parole am na solo di nga laaj trop. ba ñu ñëwee Cotonou Senghor ñëw la soir jóge euh, Paris ba mu ñëwee nag mu provoqué réunion de la délégation Aziz ñu ngi réunion ci benn salle de classe salle de classe. Mhm. bëgg ñu réunion ci hôtel bi Senghor ne ñu jëmm ci feneen ñu am boobu salle de classe fa la ñu réunion yi onze yi ak ñaar ñu ñëwaat muy Lamine Gueye ak Senghor muy treize. muy treize. chiffre chiffre fa fa di dikk. ñu ne nag dañuy réunion pour que suba ak jàmm ñu xam tamit délégation Sénégal la lan lay wax. réunion bu yàgg lool réunion ba hmm. yàlla def Ablaye Ly ay la yoon moo doon suñu mentor Ablaye Ly plaidé pour que Sénégal ànd ci ñi bëgg indépendance immédiate Senghor ànd ci waaye tamit à moitié ñu nekk ci nekk ci ba finalement ñu def wot vote ba hmm. benn voix mu am différence set ak six du mooy euh, treize waaw xaar tuuti set ñu ne indépendance immédiate Senghor donc on l'a mis en minorité à Cotonou minorité dans la délégation du Sénégal ah, mais moom mën nga maa limal ci ñu mu àndaloon rek ci ci def ndànk bi Mamadou Dia hmm. la woon Babacar Seye bu Ndar yàlla na ko yàlla yërëm Pierre lii savoir la euh, euh, euh, Pierre Ly il était avec le camp de l'indépendance immédiate dégg nga de hmm. Babacar Sarr hmm. ci la woon bref donc ñoom ils étaient six ñun ñuy sept yi sept yi mooy Thierno Ba Makhtar Mbow Amadou Ndeye Ndaw eh bien extract rose basse extra kon Abdoulaye dina ne comme vote bi joxe na 7 ak maa ngi ñaan délégation bi ñuy jox confiance Mamadou Dia pour que bu subaa mu doon le porte-parole de la délégation du Sénégal te Dia àndoon ci euh, loolu waaye Aziz en démocrate mm-hmm. Mamadou Dia en bon démocrate bañ demee ca suba sa au congrès dafa défendre la position du Sénégal comme su ko ne moom ci moom la jóge woon. yi réew maa ngi noonu ànd wuute ci xalaat du tere bokk bëgg-bëgg déedéet wuute ci xalaat du tere wóolu woonte bu bu ëllëg noonu la réew mi tëddee ñu jóge ko tun ñoom Sénégal. dëggoo war a ñëw foofu la coow li nag defe naa ni mett foofu foofu foofu defe naa ni réunion yi tar na foofu ci ci diggante boobu xam nga juillet la woon congrès de Cotonou vingt cinq vingt six vingt sept juillet ñu jógee fa rentrée Sénégal vingt neuf juillet war nag dëgmal nag mois d'août waxtam dëgmal tamit teeru général de Gaulle à Dakar le vingt six août Senghor bañ ba defee euh, réunion du bureau politique mu xamal ñu ne kat nay moom comme tous les mois d'août day dem en vacances en Normandie. moom loolu la wax. loolu la wax. Mhm. Mamadou jaa nañu moom tamit day dem faj ay bëtam en Suisse ku ne xam na ne Dia dafa amoon un problème. Euh, de, vision euh, waaw ñu ne ñuy bon léegi xale yi. seen rôle la yéen ngeen préparer arrivée générale de Gaulle ak les femmes kon Abdoulaye Ly est chargé de coordonner ça jàmbaara ngoog. jàmbaara ngoog. Abdoulaye Ly les moyens bu leen ne juillet euh, août tout le gouvernement du Sénégal était un gouvernement UPS section sénégalaise du PRA. tous les députés, tous les conseillers territoriaux étaient, euh, étaient UPS. Tous, tous, sans exception. Parce que bu ngeen fàttali wax sànq ne fusion la woon entre Lamine Gueye ak Senghor. ak Senghor avant loolu fusion la entre Senghor ak ñoom it Ablaye Gueye Kabari. or Ablaye Gueye ci Kabari Ba ak euh, euh, ñooñu ñoo nekkoon aile gauche. Mhm. donc mode boobule ñooñu ñu ne préparé leen. arrivé général de Gaulle Aziz Mbaye ci la ñu nag jóge ñu ñëpp nag man maa yor secrétaire général à l'organisation et à la propagande maître d'œuvre. manifestation d'œuvre maître d'œuvre. lu ma amee nag kenn du ko foq ci nag. Hmm? lu ma moom mbaa hmm. ma dénk. kenn du hmm. ko jël. loolu lu yàlla def keroog ba général de Gaulle dee ñëw dañu partagé woon Dakar en secteur Alioune Diop ummi jox ko secteur Amadou Racine Ndiaye jëkkëru ndaw si ñu jox ko secteur Atouma Ndiaye jox ko secteur man mi maa mi place portée. doore ko président mooy ma ma seetaan quelques éléments. Euh, suñu organisation dama bëgg wax ni. organisation de jeunesse bi jëkk prononcé wu pour l'indépendance avant ñuy avant de di ñëw fii la ñu prononcé wu woon pour l'indépendance ci suñu congrès ba ca Kaolack juillet 1957 avant les partis politiques muy RJD a ko jëkk a lancé comme mouvement de jeunesse avant les partis politiques avant ñuy dem Cotonou. jërëjëf loolu mën nañ cee sawar wax ci ndax lu ñu fekkee la mais liñ ci mën a wax li nga xam ni mooy màndargaal conseil de la jeunesse ba nga xam ni man yàlla dafa def ci jamono jooju ma ne woon secrétaire général section de Dakar nekk it membre bureau territorial parce que noonu lu tuddoon ci jamono ñooñu on n'était pas encore national. da ma bokkoon ci kuréel gi nga xam ni ni ñu tudde woon les mouvements d'avant-garde sosoon sous l'égide de Ablaye Ly le comité de défense des libertés démocratiques nga xam ne waa UGTAN IGAO conseil de la jeunesse UPMJ, euh, enfin UPS à l'époque, parce qu'Ablaye Ly était le responsable secrétaire général de l'UPS, secrétaire adjoint de l'UPS. Mm-hmm. ñoo ko sosoon pour comme ni ñu ko tuddee woon la défense des libertés démocratiques. naka jëkk nag nu ñuy jëmmale li nga xam ni moom la ñu wax ni moom la ñu woon dogal bu ñëwee fii la jaar ci corniche bi parachute français yaa ngi fi defe naa ni jigéen ñi amoon na taxawaay boo xam ni bu am solo la. ma dellu ci ki nga xam ni mooy Adja Awa Gaye ci bis boobu ci ñëw dogal lan moo ci nekkoon seen taxawaay. jigéen ñi dañ daan organiser ay meeting pour informer nit ñi ne dogal a ngi ñëw. Mhm. te dogal bu ñëwee en tant que jigéen dañoo war a demander sunu indépendance ndax ñun ñoo gën a sonn góor ñi. Mhm. ndax ñoo yoree njaboot gi yoree xale yi. yore lépp lu woo xam ne metti na ci kër ñun jigéen ñi ñoo ko yore woon fu ñu taxaw ñu dàq ñu di ñu sànni lacrymogène bi la bi ñu lacrymogène yi soofee nag ñun tam ñu def suñu cocktail molotov ah. waaw di ko daan def bu ñu sànnee lacrymogène ñu sànni leen cocktail molotov waaw moom nu ngeen ko daan defee ah sunu façon yi bopp mënu ma ko nettali fii dëgg la <laughs> mbokk yaa ngi noonu dégg nga élèves daan wut benn butéel def ci cox ak lépp mën nañ koo def def ci pétrole def ci mèche daa di koy taal loolu ah, soxna si yéen ah, yow mi nga xam ne sa sa borom kër dafa nekkoon euh, politicien hmm. nan nga daan dunde loolu yow mi nga xam jigéen nga ba pare di ànd ak moom ci li nga xam ne mooy mooy mooy mooy mooy waar wi waaw man maa ngi ci woon ci loolu waaye mu jege nag bi nga xam ne moom dañ ko responsabilisé hmm. jox ko daal loo xam lii moom mënul ànd ak may génn muy génn hmm. parce que nit ñu bari dana ñëw ca kër ga di ka seet ci suba gi mii digi ngoon gi mu ne ma daal léegi nag mën noo bokk nekk ci tali bi il faut nag yow ki am kenn ku des te yaa war a des bu ko defee fekk toppatoo affaire u lekk yeeg yooyu bu ñu demee ba ñëw fekk defar ndekki yi pare pare na bu ñu demee midi fekk lekk añ yi pare na bu reer bi jotee fekk reer yi pare na. te këru politicien ñëpp dañ ñëw ñëpp day ñëw góor jigéen mag ak ndaw. koo xam ak koo xamul koo xam ak koo xamul. léeg-léeg mu jékki-jékki nit ñi ñëw ma laajte ko ñu ne moom ko dem na Kaolack wala dem na Kees wala dem na fenn nee na nga préparé ko walisam bu ñuy dem yóbbaale ko waaye moom jiitu na ba préparé wu lisam def ci li war a def yëpp ak li ma ci war dugal yëpp dugal ci biir ñu dem fekk ko foofu. mbokk yi beneen pàcc ci histoire réew maa ngi noonu ci jigéen ak boroom këram bëgg-bëgg koo bëgg yërëm ko koo bëgg ngeen yàgg tukki bàyyi laa kër bàyyi laa ki gan yoo xamul foo jëm ak ñoom defaree lu wëy su ma yóbbaale ko parce que jiitu junnu jigéen yi démb yi daan nañ ko nangul seen boroom kër. xam ne lu mu am ci njariñ ci kër gi la koy indi waaye boobu it ñu ko séqal ay nit yu jom la noog nit nit ñoo xam loo leen defal ci lu baax duñ ko fàtte El Hadj Baro ci wàll waa ngi noonu dëggool préparation yi yow fan nga ci féete woon ak ci dox beeg yooyu. préparation yi reyoon na comme ni ko Mbaye Jacques waxee parti bi yëpp mu ngi mobiliser woon di ko préparer moom moo yoroon organisation bi. ñu nekk ri escarfé. cinquante cinq Rue Est am nañ fa ñetti guddi yoo xam ne ñoom demuñu Tëngéej fa la ñuy fanaan di bind ay prospect ay banderole ak ay pancarte mm-hmm. mais fekk na booba itam Ablaye bi commandé na pancarte yu bari imprimerie Diop ca ki kii Amadou Ndiaye Racine le vingt cinq moo ma jël si ci welo Solex la ñu war booba enseignant la Malick si mu jë welo Solex la ma toggee ñu dem imprimerie Diop. Hmm. mu ne ma comme yow da nga dëkk Médina dañuy teeru De ci suba gi ci corniche bi dañ la bëgg confier ay pancarte yoo xam ne da ngeen di xëy suba dem ci corniche bi tas ko fa am na yeneen yu ñu yóbbu jox ko Godard Guèye mu denc ko am na yeneen yu ñu yóbbu ci permanence ba parce que dañu prévoiroon beaucoup de choses parce que français yi la ñu amaloon affaire bi ñu àndee foofu mu dem mu luye benn camionnette yëpp ci ay pancarte yu bari ñu indi ko wàcc ko rue set bi ñuy ñëwee ba ci guddi gi mu dellu si fa ne ma ñu ngi jóge léegi permanence ba ci ñoom Mbay Jacques foofu lañ leen fekk mu ngi ànd ak wal joojo Ablaye di dafa doon indi wal joojo booba parce que booba permanence bi seen euh, ban pancarte yi war a dem ci guddi gi la doon dem demagu fa woon booba mais ñoom Mbaye Jacques ñu ngi doon defar yeneen mhm. mu ñëw suma kër ànd ak Racine Ndiaye moo ko indi ne ko fii laa ko dénkaane ci ngéeneen mu ñëw je me rappelle toujours veste tewet bi wala euh, Ablaye euh, lii sol bu am petit poire noir et blanc ak benn pantalon gris bu rafet Ablaye lii était très élégant mhm. wala jooju sol costume ñu ànd gaara seen ñaari oto mu ñëw dugg ma néeg ñu xool banderole yi pancarte yi ak yëpp wal joojo mu ne nañu dem seeti René Ndiaye pour mu jox ñu ay euh, timbres fiscaux pour mu nekk affichage légal ah, dégg loolu bi mu génnee ba dem ba ci otoom Ablaye li dellu si ak Racine ne on va pas faire ce qu'il wal joojo est trop légaliste nous nous voulons manifester pour l'indépendance on n'a pas besoin de timbres fiscaux loolu moo indi Iliman bi ñu demee ci corniche bi foofu RFM nekk léegi hmm. ñu teg banderole yi jël benn espèce su ay saaku muur ko ko mu jóge jàkka ja julli fajar ba pare ñëw fekkuñu foofu mu nuyu ñu mu ne jeune homme lii lan la ñu ne ko dañuy teeru De mu ne dugal leen ko suma biir kër ba ngeen xam ne cortège baa ngi bëgg ñëw ngeen door ko génne wala ba ba ngeen bari fi su waa ji bind ñuy wax ma Ndiaye Gaye muy xas Ousmane Camara xamul li xew parce que moom nekku fa woon Ousmane Camara keroog mu ngi sol benn sabadoor bu weex comme bu Mbaye Jacques bii liir français boo xam ne moo représenté la FEANF FEANF mooy la fédération des étudiants d' Afrique noire de France moo liir seen message keroog ñu jóge fa ànd dem place euh, Protet mais Majmout Diop secretaire général du PAI en 2006 bi ñuy célébrer à la mairie de Dakar euh, lii Tidiane Béy bi Moustapha Wade ñëw représenté famille bi fa la waxee ne de nous tous qui étions à la place Protet Seul Maître Mbaye Jacques Diop a l'idée de créer le comité des porteur de pancartes. Et ça a été créé en 94 booba créage amul dara amagul moom mu koy financé di ko doxal di ko doxal ba ñu defar ba ñu nekk ren quarantième anniversaire la woon ren ñu ngi nekk cinquante sixième anniversaire donc lu yàgg dëgg la alaaji loolu kenn mënu ko wedd fi RFM nekk defe naa ni daal groupe Futurs Médias témoin de l'histoire la ndax it foofu fa la góor gi Elimane Douré wax nañ ko dugal sama néeg bu bu ëllëgee ñun moo gën ñu muur ko fi wóorul am na interview yoo xam ni dinañ ko génne bu ci kanamee won leen nii ñooñu it am na foo xam ne dañ fa taxe woon mu mel ni maître Bajac ñetti fan ngeen nekk fenn ku la gis ni nga bëggee àddina ñetti fan ngeen di préparer ñëw dogoon ñetti fan ngeen dëkk ci benn béréb di bind ka maas ak xotti bi déggool di ñëw fon la la fekk ak nan ngeen organiser. Aziz euh, bi déggool day ñëw. 26 hmm. août. Hmm. mu fekk place Protet waaye avant le 26 août ni ko Baro Dieng waxee am naa ñetti fan yoo xam ne li dew ma sama kër dew ma euh, Tëngéej ñetti fan yoo xam ne yi. mën naa ko ne sanguwuma ñetti fan yoo xam ne yii de maak Atoumane Ndiaye ak Amadou Racine Ndiaye hmm. ak Alioune Diop Toifakal la ak ñoom Charles Diop ak ak sëñ Babacar Diop ñoom ñëpp. Ngiraan Ndoy ñooñu ñëpp Toifakal la donc ñuy préparer arrivée générale de Gaulle. Hmm. pancarte yi Barroso doon wax sama ak les banderoles rue Escarfet 55 rue Escarfet moo doon siège du parti bi fa la ñu leen defoon lépp ma responsabilité sous ma responsabilité le 25 Ablaye Ly demandait à Valdiodio Ndiaye de venir nous lire le bureau national du MJPS son discours bi mu war a euh, présenter général de Gaulle ñu indi wax waa jooju mu ñëw liir ko seen kanam. waaw booba parti bi am na doole. dëgg la. war jooju ñëw ànd ak Jean Collin. ñu fi nekkoon ñu fi nekkoon. booba temps Jean Collin moo doon directeur de cabinet bu Mamadou Dia. Hmm. war jooju ñëw liiral ñu son discours ñu d'accord ci mu dem ñu continuer ñun suñu liggéey su suba c'est vingt 26. man sept heures mu ngi ma fekk euh, euh, euh, bi place portée sept heures ñu distribuer nag avant loolu distribuer distribuer les banderoles les tracts les prospectus ñun rek ñoo fa amoon ay banderoles yu xam ne yile ba tey bi ñu ngi koy teg ci bët ci télévision ba jii lii ay bi bi bi photo la. ay mooy wane ne keroog ñii lañ ko nii la amee woon mhm. donc général de bi mu ñëw fekk na ñun ñu tasaariwu mais nag la sànq dañ dañu réparti woon les tâches. kon mbokk yi ma dégg te leen ay éléments yoo xam ni ay ñu ko fekk woon ànd ak ñii taxawu bis bi ba mu egsi fii tey. ku ci nekk di nettali la bis bi def ci yow ak taxawaay ba nga ca amoon ca bis ba kon ñu seetaan te dellusiwaat ci plateau bi. ma fàttali ne dogal bi mu ñëwee bi mu wàccee wakaam mu ngi jaare li ñu tuddee corniche bi léegi faanoog ak yooyu. parti bi ñu féete woon booy dugg fan génn fan donc sumba jun continuer ñun dañu cërale woon parti boobu ñu fexe. ba suñuy militant suñuy membre fees foofu ak pancarte yeeg ak yooyu dañ ko sànni ci oto euh, euh, bi nga xam ni moom la ñu nekkoon ñoom ñaar village artisanal ñu joxe signal ñu tiire benn banderole ne De Gaulle va-t'en nag dama euh, nekkoon xale comme ñoom parce que ñi ma ci magoon bariwul mais dama daan dégg mais duma ma déglu dégg mooy amul am naa suma décision bopp xalaatal suma bopp ma xamit ne ñii bëgg ñu jot suñu indépendance ci laa bokk ci biir gaal gi it laa dëkk ci laa juddoo bon bu suuxee ci laay bokk mais bu baaxee ci laay bokk euh, benn bis dama toog Rue ci timis fekk avant loolu gis naa ni xam naa décolle day ñëw suba mais avant loolu gis naa agent yi même boobu temps am na agent tubaab yu bari ñu ngi fi euh, ñuy rond di dem fii di dugg fii mais ngiraan temps boobu mooy dawal oto bi oto boobu ci biir oto bi dafa am teraak ak euh, pancart yu ci nekk mais arrivé à la Ricaise mënuñu xam fan lañuy ñuy ci lool mais man comme yàlla dafa ma baaxee euh, damay wax toujours kenn mënumaa rey su dee jotul euh, yàlla wax ne ku ñu xoqatal nga tiit àndul ak man ma am fit woowu moom laa ko ne ba léegi loolu laa am ma ñuy distoo man ma ne leen mën naa ko denc suma magasin ñu ne am ah, ma ne ko maa koy denc suma magasin ñu wax ma heure yi nga xam ne ci la décolle di ñëw mu jël ko denc suma magasin balaa kenn ñëw teewul weer timis ak yooyu yëpp ak yooyu gaa yaa ngi rond balaa école ñëw mais ma denc ko toog waxuma kenn maa ko denc bi nga xam ne ne euh, jot na ba nga xam ne ñu ngi war a teeru d'école euh, amoon nañu contact ak ñii nga xam ne ñoo nekk canal Gueule-Tapée ñu xam ne dañu yëgante ba xam ne fu dégal toll ku ne xam na fi bu toll mm-hmm. bu ñëwee sumbu jub ñu ngi fi bu ñëwee quinze angle corniche en face cimetière ñu ngi fi bu dépassé ba arrivé man nag amoon naa booba temps dañuy tuddee benn service la bu mel bu gàtt mais amoon na ay poste ci biir ma dem ci taraa gi séddale ko gars yi ñu yóbbu ko mais desi dama ko jël def ko soo poos dégol di ñëw jógegol tàppe ñoom ñu jox suñ ne dégol dépassé na canal bi man ma dal jël traag yi essayer jaar l'autre côté de droite mooy buntu cimetière bi mais tout souvent ci boori tali bi boobu temps euh, bi muy arrivé ci suma koñ boobu Lamine dafa toog parce que ñii ñoo jël ay kayit jox ko Lamine Gueye mais tegul yëgul loolu parce que moment bi moo bari mais dafa dafa taxawoon oto bi deux cent deux cent bu ñu amul tànt ci la ñu taxawoon ñoom ñaar ci banquette arrière bi mais bi ñu ma rombee comme man dama préparé dama dugal suma loxo làq ko ni de ko romb rek ma sotti kayit yi ci oto bi mais arrivé à deux pas seen naa de liir benn kayit mais dafa toog. yàlla def bi bés ba jotee mouvement bi ma lay wax léegi muy mouvement des jeunes de l'UPS ñoom bureau bi ñu tànn ci seen biir ñeenti nit ñoo xam ne ñii ñu ngi dëkk Dakar war euh, recevoir wala accueillir seen xarit yi jóge ci biir Sénégal pour ñu dem ànd ñoom ñëpp dem place porte recevoir général de ñeenti nit ñooñu moo doon aman Racine Ndiaye mu secteur Gueule Tapée pour foofu je crois trois trois bi fàtt na pays euh, euh, euh, région yi ñu war a recevoir mais ñett région la woon ku ñuy wax Atoumane Ndiaye mhm. moom mu nga woon boori hôpital principal ku ñuy wax Aline Diop mooy man mii maa nga ñu yebal nag suñu rakk ñu di ko wax Mbaye Jacques Diop mu nekkoon secrétaire à l'organisation de place protège jigéen ñi tamit amoon nañ ci cër bu mag a mag a mag parce que jigéen ñi ñooñu jàppale conseil de la jeunesse ñëwoon na UGTAN syndicat yi ñëwoon nañu RGDA ñëwoon na PAI yi ñëwoon na waaye PAI boobu temps amagul nag solo. solo waay amagul solo boobu temps boo boo PAI yi amagul sax at après PAI yi UGAO union des générale des étudiants d'Afrique occidentale la FEANF ñoom Ousmane Camara fekk nañ ko mm-hmm. lii mooy ñenn woon ci place Protet ak jigéen ñi bien sûr ugitan ba naa ko sang ba ñu teeroo général de nag ba mu dem la fi xew nag mooy général de da ko dafa bett la mu fa gis da ko bett lool mhm. lool moo ko taxaw tamit mu énervé wu ba ne je m'adresse aux porteurs de pancarte Je veux dire un mot d'abord aux porteurs de pancartes. Je veux leur dire ceci. Ils veulent l'indépendance. Qu'ils la prennent. Mais s'ils ne la prennent pas, alors qu'ils fassent ce que la France leur la communauté franco-africaine. mooy boobu ñuy dégg léeg-léeg. waaw waaw. Mm-hmm. waaye général de Gaulle wax tamit gouverneur général bi fi ne woon di Mesmer Pierre Mesmer. Mm-hmm. ne kon fii tey Macky nekk ak le ministre de la femme doutre maire mu di Konushanti mm-hmm. Bernard Konushanti mooy leen man damay rentré waaye yow Konushanti da nga fi toog ak Mesmer Mesmer moo fi ne woon gouverneur général ak le ministre de la femme d'outre-mer Konushanti Konushanti ñoo ñaar convoqué nag képp kuy chef religieux ci réew mi convoqué képp kuy chef traditionnel convoqué chef de canton yi convoqué les dignitaires lébu ñëpp mhm. la convoqué ñu ñëw le 27 place ba ñu ñëw 27 building keroog foo euh, foo foo xool birnuy rouge manteau rouge fonk coy wallaay ñooñu nag hmm? ñoo leen nag français yi ne leen yéen xayitu France ngeen da ngeen fexe ba xale yi loolu ñuy wax du fi amee nag da ngeen watelu wuy au référendum loolu moo tax ba bañ demee nag comité exécutif tëngéej ñaari yoon Aziz li may wax nii am na solo ñaari yoon jubawuñu ñu yónnee délégation Mamadou Dia Guinée yónnee délégation Jaraaf Diouf Niger ñu seeti Bakary Djibo ak Sékou Touré pour ñu seet ba xam ndax ñooñ dañu wote wuy am déet ba ñëwee rendre ñu compte jubawuñu mm-hmm. ci guddik 19 septembre ba le ñu wote ñun partisan partisan du non ñu gañe ñu ñu génn ci salle des fêtes wu Tëngéej njël le 19 dans la nuit 19 au 20 jubal dangu sud kër Amadou Gabin Guèye instituteur ca salle ca salon ba ci la ñu créé PRA Sénégal Abdou Aziz Mbaye waaw kii moo di la manifeste du PRA Sénégal. Mhm. dama ne keroog la PRA Sénégal juddu am na ñu bëri ñuy def confusion UPS moo doon section sénégalaise du PRA keroog nag ba ñu jubawulee ñun ak parti bi nga xam ne dañoo génn nag mi en si le les positions du congrès de Cotonou ci la ñu génn nag dem dangu sud ca Tëngéej kër Amadou Gabé Guèye créé fa le PRA Sénégal ak les premiers signataires mën naa ko liir boo ma may may ma ma liir ci. ay eh, ca gis naa ci ki nga xam mooy Ablaye Ly secrétaire général adjoint de l'UPS. oui conseiller territorial. ngoog gis naa ci Assane Seck. ngoog général à l'organisation à la propagande de l'UPS. conseiller territorial. dëgg gis naa ci Thierno Ba. secrétaire général à l'organisation à la propagande de l'UPS. gis naa ci ki nga Amadou Makhtar Mbow. oui secrétaire général à l'organisation à la propagande de l'UPS. ministre de l'éducation nationale. exact boobu tam. Abdou Aziz Wan responsable à l'organisation du cercle. de, de, de Podor de Podor de Podor mi ngi ci. Ah. Diouf Diaraf. Ah. commissaire aux comptes du bureau de l'union régionale UPS de Sine Saloum. membre du comité exécutif. Oui. conseiller territorial ministre de la production. dëgg la gis naa ci Ndiaye Amadou Racine. Ouais, trésorier général du MJPS. membre du bureau exécutif de l'UPS. exact gis naa si Diop Mbaye Jacques. oui secrétaire général à l'organisation à la propagande du MJPS délégué des jeunes au bureau de l'UPS. gis naa ci ki nga xam mooy Diop Madia. syndicaliste gis naa ci ko si Diop Fadilou. membre du comité exécutif de l'UPS. avocat avocat. ñooñu. Mhm. nga lire sur les 57. kon keroog la PRA juddu. pas avant ni après keroog la juddu la juddu mu di kii bi euh, manifeste bi ca ca suuf sa hmm? ñu ngi ci bind jot sa réew pays da daan wax moom sa réew ñun ñu wax jot sa réew mu ngi nii c'est clair 20 septembre uh-huh. kon leer naar waa wax yaa xayti nag xam nga euh, lii moom euh, kenn mënu ci dara kon bañ fa jógee nag asis lañ ne bon léegi ñu wote noo ñun suñu mbokk lébu yi maa ngi nuyu euh, famille sa sëñ Babacar Diop bu bu El Hadj Rema Diop moom ci ñu ne woon ñu wote noo ci la bokk suñu mbokk lébu yi nekkat ñun li xale yi wax euh, anuñ ci ñun dañu bëgg département français doon ay français faf ay français faf donc bataille la woon bu méttee méttee méttee vingt 28 septembre nag ñu wote oui ak non oui bi nag raw ñu lool ñun ñu am set mille à peu près 7000 voix la ñu am ci booba temps nga xam ne amul isoloir. amul. Euh, euh, encre indélébile dara amul. amul résistable ah, dara amul da ngay ñëw rek chef de canton bi day ñëw. ak indi saaku carte d'identité ak kii ci kartam ne aci ñu <laughs> euh, lii mooy li xew 28 septembre ñu jóge ca nag eh, yàlla def nag le l'a emporté waaye 26 août li tax am solo teguñ ca at général de ñëwaat Sénégal ñëwaat Sénégal en 59 décembre 59 ñëw assemblée nationale. Mm-hmm. boobu temps ñu ngi defoon fusion ñu ngi defoon fédération du Mali Soudan ak Sénégal moom général de Gaulle ne dans quelques jours le Sénégal et le Soudan réunis dans la fédération du Mali vont accéder à la souveraineté internationale kon ñu ni la waxoon ñun 26 août ñëw na. dëgg la mbokku téléspectateurs yi lem neex na waaye du jiw li nu bëggoon rek mooy xam lan moo waral tey le 26 août. 58 ba tey jii ñu koy feete ñan ñoo ko doon wax ak ñan ñoo taxaw woon déeti démb ya ba nit ñi ndikk bi ñu ñëwaatee léegi lañ ko nanguwaat tubaab yi nangu ni mën nañu koo def léegi muy nekk fédération du Mali diggante Soudan ak Sénégal foofu la yem ndax it nag dinaa dellu siwaat ci weneen waxtaan ci histoire réew mi wala bala may tëj damay jox ki nga xam ni mooy sama tant ju baax ji toog sama wet mu wax li muy tàggoo ñu doogoo ma doogoo ma doog doog jàll ci ñeneen. alaaji li may tàggoo moo de dama bëgg ñun jigéen ñi ñun jigéen ñi fi des te xeex démb bu dul tey ba xeex mettee xam na lu ne def nañu ko. jigéen ju fi nekk tey ba nekk bureaucrate mbaa nga nekk député mbaa nga nekk ministre ñun ñoo la xàllal yoon wi ba mu tax dëgg la. kon nag may ñaan ñun ñi nga xam ne ñoo fi des te bariwuñu ñu jéem ña jéem bu am loo xam ne sax dinañu ko mën a sax euh, rafet sagale sagale dëgg la ndax dañoo xeex ba màgget mm-hmm. te feetu féetuwul fen ñi ñuy wax tey ñii di leen sowtee ji ñun li ñu def defuñu ko dugal nañu ci prison yi yóbbu nañu ci ci salle de police yi fanaan nañu fa jox nañu ay mburu yu wow jox ñuy mbàjji alkaati ñi di ci fan mbàjji soldaar yi di ci fanaan suñu kër dañ ko daan encercler guddi ba jant soo doo génn yooyu yëpp dal nañu ci opposition boobu. dëgg la kon nag sonnoon nañu coono boo xam ne bu ñu sañoon tey jii bi mu demee ba mu neex ñun jigéen ñi xam ne ñoo leen fàkkaloon ñu jéem ñoo jéem a xool tuuti. ba dëgg la dëgg la sama yaay. ñi ci ñi ci kër gi ñi ci naaj wee leen ci bàyyi ñee yàgg ci naaj bu lépp fekk leen ci. kon tey jii buñ dee wax parité bu buñ dee wax réew mi di sagal jigéen it war nañ leen a war a woo décorer leen tappal leen mandarga yu dayoog seen dayoo la nga lan doon xeex ca boobu lii lépp amagul ah, soxna si ah, yow it ma jox la. waaw Adja Seynabou Lokoubar nga wax sa dernier mot ci li ngay jëmale ci askan wi ci émission bi. waaw xanaa di leen gërëm di leen sant di leen ñaanal yàlla ah di ñaanal yàlla ci Mbaye Jacques ku mu leerul woon sa bopp yaakaar tey war na leer nañ sa bopp. Mhm. ndax li mu wax ker barke démb. wax ko démb wax ko ci télé yi wax ka tey jii yaakaar naa ne ku mu leerul woon sa boppit war na leer sa bopp bu baax a baax di gërëm baro ak ñeneen ñi nga xam ne dañooy ànd ak ñoom te ñëwuñu di gërëm it Racine Ndiaye di koy ñaanal yàlla fa mu nekk yàlla na ko gënal fii parce que ku baar la woon ko amoon fit koo xam ne kii bakkanam réewam jaraloon na ko bakkanam daana toog jour yoo xam du lekk du naan yëpp ndax parteem dëgg la waaw ku ci amoon jàmbaar am ci cawarte looloo tax sax man ma dugg ci. nga dugg ci dëgg la. 100 pour cent ndax dem naa ba léegi mag laa mënatuma dara xal yi dañuy wax sax waaye ci su pour revivre seen papa ak souvenir seen papa moo tax ma duggaat ci ndax lu ko lu mu bëggoon la. dëgg la mbokk yi xanaa yaram war naa daw. ànd ak ku baax ba mu njibi alaxira ngay seeg alaxira bàyyi fi doom yi la mu bëggoon sonn ci biir réewam la mu di ko dox ci bëgg-bëggam te muy jariñ réewam mu woon la ginnaaw nga nekk ca tey ba mënatoo ca dara sax waaye di ca yëngu loolu ci ngor la bokk ci colère la bokk Alaaji Baro looy tëjee. li may tëjee mooy fi ma commencé woon rek xale yi ñooy suñu préoccupation. dëgg bu ñu sañoon xale yëpp am liggéey bu ñu sañoon ku feebar faju bu ñu sañoon ku xëy am loo lekk mais loolu yëpp effort national moo koy def. faut réew mi ñu retrouver wu dans l'essentiel ànd liggéey réew mi taxawal ko parce que loolu mooy jariñ réew ñun looloo ñu taxoon di porter pancarte 58 te pancarte yooyu ba 2014 daanuwul li tax daanuwul xale yaa ngi taxaw di revendiquer di def lu nekk donc mais xale yi nañ jël conscience que réew constitution nationale moo koy defar ñëpp ñoo ci ànd liggéey ko ñu ànd am yar am teggin mag ñi itam comprendre leen moo tax ren suñu thème bi ñu def indépendance nationale et défi économique am maana ñu tuddee ko ay om yu célèbre gannaaw parrain yi Mbaye Jacques dana leen tudd mais les hommes ak femmes yi dana leen tudd mais ma tudd ci rek six ku mel na lamin Diack nga xam ne modèle la sur le plan international mm-hmm. ñu tudde ko ku mel na Ousmane Camara nga xam ne li ma wax defoon na ko cinquante huit ak li mu continuer role bi mu joué ci justice sénégalaise continuer di ko ma Madiambel Diagne nga xam ne dañ ko jël en tant que journaliste éditeur de presse mm. du du Madiambel turam mais li mu yor te mu yor ko yor bu rafet pour journaliste yëpp di Sénégal war a xam daaw ñu sargaloon ku mel na jatu Cissé Koulibaly ren ñu def ko moom ñu jël itam ñetti homme d'affaires yoo xam ne sur le plan économique dañu xeex li ñu def ku mel na Babacar Ngom keroog biñ ko seetee li mu ñu nettali Mbaye Jacques di ko wax suma doom nee na ma gis na benn kayit ñu ne soixante mille nga amoon bi ngay démarré mu ne effectivement soixante mille laa démarré jënd ay kii bu may poulailler. Mm. ci laa liggéey ba léegi fi ma nekk nii ku mel na Cheikh Amadou Mbacke Sey diplôme yow mi amee Touba gaz Touba voile ak yooyu yëpp ñoo ñëpp ak ku mel na Serigne Mbuub nga xam ne ci daara la jóge jàng ba ak li mu yor loolu ñu bëgg leen jox exemple jeunesse bi pour ñu xool leen mun leen jëf ay royukaay loolu lañ ci jublu du leneen. jërëjëf mbokk yi defe naa ni réew bu dee dox fokk ñu li nga xam mooy modèle dafay am modèle de la jeunesse dafay am. waaye mënoon koo tànn ci mag ñi fi nekkoon ba génn ak li nu def waaye nañ koo tànn ci biir ndaw yi fi ne te jëmmal seen réew Babacar Ngom bu Sedima wax na ko léegi ba muy démarré woon fële ca yëmbal ba léegi fii Sedima nekk léegi am na solo bu lu mu jéego bu mu def kii di Serigne Mbuub doomu Baara mbub la woon nekkoon ca marché Kaolack di jaay ñëw ba ci fii Ndakaaru liggéey fi tey génn àddina bàyyi doomam Serigne Mbuub mu jóge ca daara ja kokki ñëw yor entreprise bi toll noonu ba indi ko fi mu ko indi kon kay daara mas naa indi mas naa jox réew mi doom joo xam ne mas na ko defal satisfaction ak kan Cheikh Mbacke Seye mi nga xam ni lépp luy defar affaire u fer ci réew mi daf koy def yor loo xam ni ci biir réew mi la ko la ko liggéey indiwaat ko fi jël ay doomi réew mi liggéey loon loolu mooy exemple de patriotisme kon maître dama lay bàyyi nga tëj waxtaan bi <coughs> ci parrain yi quelques mots rek ngay wax ak message boo jox jeunesse bi ak message boo jox les hommes politiques ndax ànd noo jëmal réew mi kan ci la am solo Maître Mbaye Jacques Diop. maa ngi lay gërëmaat Aziz di gërëmaat le groupe Futurs média di wax ne fin tey 26 août 2014 muy juróom fukki at juróom-benn ñu moom suñu bopp mbaa ñu doon ko laaj li ñu war a dëgmal ñun ñëpp. moo ji ne àndandoo nekk benn pour réew mi jëm ci kanam ki fi nekk tey Macky sal comme président la République sénégalais yi ñoo ko fal pour cinq ans mbaa pour sept ans li am solo mooy démocratie nag dafa laaj opposition ak pouvoir ñun tey suñ cër mooy conforter loolu. suñ cër mooy tamit ne wax lu baax def lu baax suñ cër mooy jubale nit ñi jubale réew mi suñ cër mooy. fépp fu ñu dégg loo xam ne lii day indi safaan ci réew mi ñu jóg dox ko wax ko ba loolu euh, sedd ndax kat réew mi nag ñoo ko bokk bu loolu passé parrain yi mooy Adja Aram Diène James Benoît Madia jóg Abdou Ndéné Ndiaye ñi ñu ko jagale nag ay euh, du ma ñëwaat ci li Baro Diène wax mais jigéen ñi mooy Fandongo Dieng ku ne xam ko syndicaliste. Ah. maam Yacine Diop bu Tëngéej. Ramatoulaye Seck euh, ay bëtu Ndiaye bu dakaar Mariane euh, euh, Marie Anne Samb Soy ak Maymouna kan Touré bu ñëpp xam. ñii ñoom lañu jagleel bés bi di waxaat ne ñu ngi gërëm suñu borom yàlla senegal nag mën naa am jàmm. te am na jàmm ndax kat ba ñu laaj indépendance du woon rek pour indépendance dañ ko doon laaj pour démocratie liberté état de droit bonne gouvernance lu lépp nag moo taxoon ñu doon laaj indépendance ñu ngi ci tànk yi nag ñu ngi ci tànk yi kon jéego yooyu la yal na ko suñu borom yeggale ak xale yi tey tamit euh, ñu ñaan suñu borom yàlla. Ah, ñu fekk ay yeneen i 26 eh, août ba man tamit boole ci ñëpp nag réew mi yëpp benn buum la Sénégal buñ ko fàtte mooy rek pays africain boo xam ne bii moom seul moom dong moo amul coup d'état mhm. moom dong moo am démocratie bu boob ak tey at ñu jot ñu fal suñuy président fal suñu député fal suñu ay maire loolu fii rek la am kon loolu tamit ñu saxal ko parce que loolu mooy démocratie mhm. ñu ngi leen gërëm di leen sant di gërëm yow Aziz di gërëm tamit Youssou Ndour ak xale yi fi nekk ñëpp ñu ngi leen di gërëm di sant di yàlla léegi yàlla géyeen ko fulandi mbokk yi xanaa rek réew mi noonu la toll wax na ko léegi ñuy gërëm bu baax di jaal ki nga xam ni mooy euh, sëriñ Abdourahim Diop bi nekkoon gi xalifa ki nga xam ni mooy sunu maam ma sàmba Diop bu saam di ndokkeel ak a ñaanal jàmm ke mooy sëñ Abdou Wahab Diop mi ngi xam moo ko wuutu di ci jaale suñu jigéen Adja Ndella Wade bu baax di gërëm El Hadj mbay ci taxaw bi ak ci li nga xam ni dina ma koy xamal léeg-léegi ci histoire réew mi di gërëm sama mag Pathé Sarr ak doomam El Hadj Sarr sëñ Babacar di gërëm Audi Touré ak ki nga xam mooy Tayrou Sarr waaye mbokk yi bala may tàggoog yéen dama leen di liiral ci manifeste bi Maître Maïssa Diop wax phrase boo xam ni réew mi war nañ ko xalaat phrase boo xam ni tamit képp koo xam ni bokk nga ci élèves yi tey di jàng war nga ko xalaat ndax réew mi naka jekk ay borom xam-xam a fi nekk. nee nañu ci déclaration bi il y a moins de deux mois au congrès de Cotonou 25 26 27 juillet 1958 le part du regroupement.